man lu xujooru gone li ñuy wax rek waaw curiosité gone ndax lu ko jiitu daan nga ko dégg déedéet musuma dégg turu sëriñ Saaliw musuma dégg sax turu sëriñ Tuubaa ndax li nga nekkoon kër buur a tax booba déedéet damay gone du li ma nekkoon kër buur booba damay gone mën a gumaa xam xam leen lu dul environnement immédiat bi ma nekkoon loolu la. mosoo woon dégg turu Serigne Saliou. mosoo woon dégg turu Serigne Touba. turu Serigne Touba xaj na moom sax ñàkk ko maa dul ko ndax booba damay gone. ñu eggale bi nga gisee euh, Serigne bi ci ci ci watiiru fas bi. bi ma gisee sëriñ bi ci watiiru fas bu romb nu. Mhm. watiir boo xam ne fasu xong. wu jébb ci tànkam jébb. Moi, am ay couleur blanche ci tànk yi jébb na ñeenti tànkam ya Des, di di diri Moi, ba mu ànd je ne me souviens pas du nom Il y a beaucoup de personnes maintenant qui me disent qui me disaient parce que ces personnes là ne sont plus qui me disaient que ñoom un ñooy ko di sëriñ bi mm-hmm. bah, je peux pas affirmer mm-hmm. nii infirmé mënu ma ko weddi mënu ma dëggal waaye en tout cas bi nga xamee nii fii dem na ba ba ba bëgg a xumb kone bëggoon naa doon nag kookee doon dawalal sëriñ bi watir ba waaye comme man booba gone laa mënuma caa xam dara jéew ma caa weddi jéew maa dëggal man daal nekk nag sama mag nuy bay ci tool bi dañuy ruuj ruuj débroussaillement ma gis watir bi romb nu ma sëpp sama bopp daw topp voiture bi. te xamoo lu tax nga def. déedéet xaw lu tax booba yi ko ne bëgg damaa lang ci voiture bi. ah lang. lang. comme ni ko xale yi di. ni xale yi defee. waaw moom laa mën a expliquer. waaye la ma daw loo la ma xëcc la ma yóbbu ci ba topp voiture ba loola ginnaaw gi laay door a xam la ma ko teg. ñu dellusiwaat nga daal di daw topp voiture ma daw topp voiture bi. Mhm. serigne bi di coché bi taxawal mu taxaw Muni ni ma bali, ni ma ndongali kay nuyo ma daal di ba kat déporté wu sax pour dem à droite fek serigne bi fi mu toog fi ma ci ginnaawu tir bi la talal sama loxo ci ginnaawam mu wuññeeku jox ma loxo te mang koy ma daw ba dab ko booba ngonee de te xawma ma it waaye xam nga ne waroon maa dem ca kanamam sukk ci suuf tàllal ko samay loxo ca kaw waaye booba xaw ma ma tàllal ko sama loxo ca ginnaaw ma wuññi ko jàkkaarloo man jox ma loxo waaye ku xam digganteem ak xale di nga xam ne du aayal li nga def déedéet aayalu ko du ko aayal déedéet mhm. mun man ndongo li noo tudd ma ne ko man becco laa tudd mun ma noo sant ma ne ko coon mun ma foo dëkk ma ne ko dëkk bee nga génne léegi ndax suñu tool ak dëkk bi sorewul bi bu génnee ci dëkk bi romb nu ma ne ko ci dëkk bii laa dëkk ñu di ko atta set mun ma kee ca tool ba kada ma ne ko saama nga noo bokk ndey ak bàyyi mun ma nu mu tudd ma ne ko gille coon na tudd ñun ay caddo la woon bee coog gilleeg ay ëmat jéeg booba ay caddo la noonu nguur rekk la du xam sunu bàyyi buur yi la daan àndal buur bàyyi sàmba la daan àndal buur la géwélu buur la woon noonu booba sunu bàyyi géwélu buur la musu noo xam gis nga ba jamonoy métti nga xam ni euh, lekk demeewul noona yére waaw am na ñoo xam ni saako la ñuy sol dañuy jël ab xotti saako ñaaw ko bu di sol yooyu jamono après immédiatement après la guerre boobu dara amul ci réew mi boobu buur bi baay sàmba sama kilifa bàyyi ga boobu bëggaat ñeex mu neex suñu kër lay ñëw dañ naa danaa demal kër kuli nañ ma fa wutali am ñeex ndax ñoom kat ñoom rek ñoo am ñeex mu neex nooy rey bi yi nooy rey xar yi nooy rey ginaar yi waaw boobu saa saa bàyyi la mu nekkoon moo dàqoon nguur. ñu dellu siwaat ci watiir bi sëriñ bi. waaw ñu dellu siwaat ci. Mhm. bi mu la laajee sa turu mag bi nga wax ko. ma wax ko ko mu laaj la fi nga dëkk nga wax. ko ko mu ni ma. lan moo ci topp. bu ni. Mhm. dinaa dellu si ci dëkk boobu nga wax di taset ngoon. yaag sa mag jee. sa makkat mu nga taxaw di ma séenu. dikkul déedéet ak siwul moom mu nga téye boppam. noonu gone yi def rek booy bay ba yàgg sonn kott sa gopp taxaw mu kottub goppam di ma séenu maag Serigne Saliou ma ne ko mu nga dee ma du ma tudd ba ko gi leen sa tëccoon mun ma yàgg moom bu ngoonee na ngeen ma fekk kër sa bàyyi Isma juuf xam ngeen sa bàyyi Isma Diouf ma ne ko waaw xam naa ko mun ma bu ngoonee yàgg sa mag jee na ngeen ma fekk nu liggéey ba ngoon nu wàcc sangu sol suñu yére dem kay kër Baye Isba juuf fekk fa Serigne Saliou fekk mag ña ko wër danoo séen rek daal di yëkkati loxoom ni nañ leen may ñu jàll mag ñi daal di séparé ñu jaar ca ba si ci moom xamuñu boobu su jóot ñëw rek nit ni root lool laalal taxaw tàllal ko loxo nuyoo ba noppi mu toog noonu ci suuf ñu toog fekk maa ngi ko fekk muy waajal ataaya baraada ba jëkk a ñor ba mu xellee ci kaas tolluwaatiwul eh, eh, tollantiwul beneen kaas sama benn kaas ba la xelli maanaam musuma man ma na a xalaat sax boobu maa ngi yaa ngi fi murit yaa ngi fi waa dëkk baa ngi ko wër mu daal di yëkkati kaas ba mu jëkk a xelli ba mu ko yëkkatee maa ngi ku ne tàllal say loxo mu naa nii loxoom te xal yëkkati kaas ba teg sama loxo ñaareelu kaas ba mu yëkkati ko teg sama loxol ba door na nga geesu mag ñi te booba ci juróom-ñetti at lañu war a toll mhm. noonu nag